mi ngi ci leer yi tey di naan dem fekke woo seex jiili jaara ci yoon wi lem waaw mooy jaamu yàlla ak jëfu yiw kon fuñ ko seen daañ la fa seen yonen ba dem na aati aat seex bamba feeñ ni ko tawit di tagg rekk noor ak nawet baraw bu sayri ak xasaan seex abdu xaadir dem na tey cey nag bu doon dundu ba moom bu demeet jëf yaa ngi fi tey royal ci jëf yi mu jëfoon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 ku ñëw mu may la du la dig diine ji tey ñàkk na ñëg lislaam ji ñàkk ni mu meloon ci sunna si bu doon dugub mooy suuna si doonu ci tiñ ba ab si daa mel ni gopp bi la yoroon sunna dafay ay xeeti xeet am ci yu tondu am yu xóot am ci yu rëy am ci yu tuut seex jiili yépp la defoon danaa la jox menn misaal tabaski gi laa lay misaal sunna yi metti duñ ko laal sunna si koor moo jiitu seex jiil yow ma tarwiya daana ko woor woor arafa yii yépp nag nga fa te roy man yonen yonen ba nag lum saxaloon seex jiil def ca la manoon danaa ci lu tuuti man sunni yu dëgg nag la woon li nit ñi ñépp sàggane bayiwuma mag ak gone seex jiili moom fii ma ne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 soxna si nag moom ku ko xam xam ne léppam Sëriñ Tuubaa la léppam ak taalibe la moo tax bis bii bu ñëwee li muy njëkk a def mooy mbooleem luy daaray alxuraan dana fa santaane ñu fay jàng di fa wàcc ay kaamil di fa jàng ay xasida bis bi moom da koy tàmbalee ci alxuraan ak xasida di ko tëjee ci alxuraan ak xasida mook mbokki taalibe yi mook euh, wëllëre yi ak ñi nga xam ne dañ koy euh, mooy seen bunt sëriñ Abdou Khadre nee na nag nii ngeen def moom nii rek la ko sëñ bi bëgg ndax dara génn ci sëñ bi tàmbali beeg doxin weeg lépp mi ngi ci sëñ bi nee na mi ngi sant mbokki taalibe yëpp di sant mbokki boppam yi di sant sëriñ bi ndax liikat kat lépp sëñ bi la moom léppam da ko delloowaat sëñ bi fu mu toll daal moom nañ xam ne ab taalibe la bañ na ko ba daayira boo xam ne sos nañ ko fii rek ngir sëñ Abdou Khadir soxna si bokk na ci te kenn du ko ci man lépp luñ ciy joxe addiya loxo ma nga ci biir soxna si nag moom day koo xam ne ñëpp la fi nekkal kenn ku si nekk boo wéetee da ngay defee ne soxna si yow sa soxna si bopp la fekk na moom ni mu mel noonu la ko yàlla bind dimbale waate digle nit si lu baax tegle si saraatul mustaqim di sëñ bi digle si la nekk lim tere bëgg foo ko fekk mi ngi dox ak mbokk lépp lu mu amit da koy jox nit ñi yaakaaral sëñ loolu daal ci loolu lañ nekk waaye daal bis bi ñun nin ko ni ma la ko waxee daal nin koy dundale daal mooy alxuraan ak xasit soxna si daal moom noonu la koy dundal waaw alxuraan ak xasit moom laay nekkati xotoom bi moom nga jëkk seen saa bu desee fukki minit mu ni gede na jege kat ngir weñ gi mën naa sikk kat wala mu paan yeexu doxiin randiw du randoo ci moom tey tey ku koy sàkkal moroom ci nii mu daa jaamoo boroom yaay dàq wër aw waraan ngir ñaari mbir yi ñoo fi am wa maa umiroo moo fi am wa maa xalaqtu ñaareelam seex jiili fii la ma ne woon ku ñi moom su la farata dañ koo jëllale ngir kenn du man ci naafi la farata jenn mën a neen toogiin wa lépp sunna la waxtaan wa lépp sunna la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 bos bi ci barke borom sëñ Abdou Khadre man nag damaa mën tax waaye sama xol seet na guy yéen ñi yore télé bi yàlla na seen fan yokk gudd yéen yàq lool télé bi yàlla ñu télé yu mel ne yàlla na ko dugal ci ci bisub sëñ Abdou Khadre te sama ilimaane jaam yi te mën na lu ne waaw mooy ilimaane jaam yi mën na lu ne kon nag sëñ ñu ñaan su teewal sa aaji naan yaakaar ni maam ñi bëgg sëñ Bàmba ñëpp bëggoon nañoo ñëw siyaare si quoi mm-hmm. mais ñëpp ñëpp duñ ko man mm-hmm. mais di ñaan yàlla mu nangu ñaan yëpp kon fasaale waaw fasaale naa ñëpp moom ñaan yàlla mu nangu ñaan ñëpp daal. waaw di ñaan Cheikh Abdou Khadir yàlla yokk ay leeram te taas ci ay bàkkeem ndax moom exemple leer la. rawatina ci waaw ci waaw ci ñëpp. Mhm. ndax ni mu toppee woon sunna rek fonke woon ko sunna rek mhm. euh, yéem yéeme na daal yéeme. mënta taxaw ngir yoru taxul farata jenn neen wéra day yokku wéram. fum toog ma ngay yi ngërëm jaamu ga dang ko daa yërëm du tay mbaa mu te nii mu mel ci ak magam baat yeneewee ña ko xam nee nañu lii moo masa am sunnaam si moo leen ci mënoon fépp bu no du masa jib du nangu ab baat di fa jib nee na julit bu ne ci jub sa contrat nga si ñëwoon bu no du daanoo it jógal jàkka ja dal cay jawal ko buur bi wooni